asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuy ku ci nekk ci turam ak santam amaat mbégte nag bu baax a baax toogaat fii di leen jagleel seen émission meilleure santé meilleure santé nag comme ni ngeen ko xamee ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement di waxtaanee wàllum wér-gu-yaram tey jii nag ñuy desandi ba tey ci jàngoro ji nga xamante ni euh, moo wër àddina di Covid 19 ñu gën koo xam ci coronavirus ci loolee nag daañu waxtaanee euh, thème bii di engagement communautaire et Covid 19 ci loolee nag ñu ciy dalal Fatou Bintou Cissé di. spécialiste en santé communautaire ak kii di Cheikh euh, Yankoba euh, Diédiou moom itam di spécialiste en santé publique daanu dalal itam Sira Doumbia di EPS bu euh, l'hôpital Nabil Choucair mbokk auditeurs yi nag laata ñoo gën a xuus ci waxtaan gi dañuy jox suñu invité ñu daal di nuyoo ko mbokk auditeurs yi Sira nuyu na la. soxna Maymuna ñoo ngi lay fay di wax auditeurs yi asalaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu nekk ci turam santam di amaan mbégte vraiment ñëw toogaat ak yéen fii ngir euh, waxtaan ci wàllu euh, feebar bi di coronavirus. Mhm. Euh, ñu jox kàddu gi ki nga xamante ni moo di Fatou Bintou Cissé ma leen di fàttali rek ne moom spécialiste en santé communautaire la Fatou nuyu nañ la. waaw man ngi leen di fay di nuyu ñuy déglu di nuyu sénégalais yi yëpp am contentement ak mbégte ñëw toog fii wara waxtaan ak yéen si wàllum feebar bi di Covid 19. merci. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, Yankoba Diédhiou moom itam spécialiste en santé publique euh, ñu jox ko kàddu gi mu daal di nuyoo ko mbokk auditeurs yi nuyu leen la Cheikh. asalaamaaleykum euh, waa auditeur donc Afia FM maa ngi leen di nuyu di leen aussi jaajëfal di leen encourager pour ngeen déglu émission yi ñuy def ci wàllu donc Covid 19. Mm-hmm. am na solo bu baax a baax di leen fàttali rek ne euh, district Dakar Nord euh, centre de référence bi mooy Nabil Choukar moo fa nekk ëmb nag Padoua Grand Yoff Parcelles Assainies ak Cambérène nombre de cas yi di gën di bëri foofule euh, ca district Nord loolee sax dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ni moo di Sira Doumbia mu daal di ñuy wax fan la ñu ci liggéey bi ak nombre de cas yi nga xamante ni am ngeen ko ndax dégg nañ ne feebar bi nii ci district nord. Euh, waaw soxna Maymuna comme ni nga ko waxee rek xam nga loo xamante ne lii ci benn lañ ko doon euh, tàmbalee. Euh, léegi en un moment donné demoon nañu ba dépasser centaine bi. actuellement nous sommes à plus de quatre cent soixante quinze cas parce que le premier bi passé nous étions à quatre cent soixante quinze cas donc c' est que bu ñu defee état bi ba fu mu ñu toll nii ça dépasse les quatre cent soixante quinze. donc mm. loolu muy lan muy wane ne. Euh, feebar baa ngi yokk mm-hmm. xëy na euh, su fekkente ne tamit ñun taxawaay bañ ca doon def tey lañ ko gën a jëmmal mm-hmm. tey lañ ko gën a yokk mm-hmm. waaye tamit feebar bi mu ngi yokk lan mooy expliquer loolu si daal euh, waaw amaana xëy na si yi du wax lan waaye yan ñoo waral lu mel noonu ndax xëy na fànn yi bari na te dama jàpp ne mbir doo ko teg rek ci benn fànn Eh, ndax xëy na amaana ku ci nekk am nga loo xamante ne xëy na boo ca yokkee taxawaay bi amaana feebar bi yokk gi muy def eh, danañu xool nan lañ koy gën a contrôler mm-hmm. donc damay njëkkee benn bi xëy na si ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy prestataire de santé yi xam nga eh, ñun dafa am fànn bu ñuy taxawee muy maanaam lu ñuy wax la communication mm-hmm. ñu gis ne xëy na li waral yokkute googu Euh, communication am na ci part de responsabilité su ma nee am na part de responsabilité du caage ne euh, lañ ca nekk di def defuñu ko ca waaye loo gis rek euh, dafay am loo xamante ne lii boo gisee ne la ngay def doyul nga jéem a xool noo ko dollee mm-hmm. te comme ni ñuy wax rek su fekkente ne taal dafa të tàkk yow da ngay xool côté yu bari yoo xamante noonu nga ko mën a xambee uppee ko fa nga mën mën a tàkk mm-hmm. ba tax na ci wàllu communication boobu yéen naam yéen a ngi siy jàpp yenn euh, rajo communautaire yi. Mm-hmm. waaye jàpp naa ne euh, ñun xëy na bu ñu toogee fii rek di wax wala ñu dem ci ñenn ci askan yi di wax tamit taxut ñu jote fépp. Mm-hmm. ba tax na ñàkk a jote fépp boobu man jàpp naa ne am na ñoo xamante ne dañu soxla ñu jël temps bu koy matee ngir waxtaan ak ñoom. Euh, ndax mbir mi xëy na su ma nee communication fànn la boo xam ne xëy na ci wàllu prestataire yi sooxe na ci. Mm-hmm. ci côté bu nekk la. ndax nit ki temps bi nga war a jël ba wax ak moom ba li nga xamante ne war na ko comprendre ci wàllu wérgu yaramam dafay am solo ndax suñu jëlee li nga xamante ne moom mooy feebaru coronavirus bi euh, waruñu imposer kenn lenn. Mm-hmm. maanaam suñu nee tey jii euh, nit ñi dañoo war a respecter mesures barrières yi. Mm-hmm. dañoo war a respecter mesures barrières ça veut pas dire que dañ ko imposer nit. Mm-hmm. mais nit kooku tey dafa war a xam lan mooy njëriñu. mesure barrière yooyu nga xamante ne mooy maanaam aaru yi nga xamante ne yi mm. ku ci nekk war nga ko jëmmal pour mu mën a law pour ñu mën a am ah, maanaam jeexital bi nga xamante ne moom la ñu bëgg ci aarum feebar bi ah, te suñu ko waxee mooy ne nit ki yaakaar naa ñu ci noppee di ci dellusi mm-hmm. ah war nañu farataal raxasu bi raxasu bi nga xamante ne bii tout le temps nit ki daf ko war a def parfois ñu ne la am naa alcogel wante man euh, raxasu bi laa bëgg nit ñi gën ci euh, taxaw ndax savon liquide am na mm-hmm. savon pain am na mm-hmm. surtout que bu ko daggee dagg yu ndaw mm-hmm. ndox it yaakaar naa ne fu mu toll nii fi ñuy wax ñàkk ndox du fi nga xamante ne fii moom mooy district nord donc nit ñi war nañu gën a farataal raxasu bi leneen li tam mooy nit ñi xam nga nous vivons en société donc ñi nekk ci kër yi dëkkuwaay bi xat na comprendre nañ ko maanaam nit soo koy bëgg a jàppale ca fa mu nekk mm-hmm. ak na mu nekkee mm-hmm. ngay xool nan lañ koy améliorer pour mun a renforcer pour que feebar bi mën fi jóg mm-hmm. donc su fekkee nit ñi dañu nekk ci kër nekk en famille man fu mu toll nii li may préconiser mooy li nga xamante ne moom mooy takku masque bi ñu bañ ko def rek ci biti même ci biir kër yi lu dul ne nit ñi dañuy toog di lekk ñu farataal fa takkum masque bi parce gis nañu ne situation bi ñu toll léegi. moo tax léegi ñu war a évoluer ci communication bi war a xamal nit ñi ne léegi même ci biir kër yi dañ faa war a takk masque ndax euh, xam nga am na ñoo xamante ne ay locataire lañ dañuy dëkk. Mm-hmm. suñu dëkkee ñoom nga dépister leen ñu positif. Mm-hmm. ñoom dañ lay wax ne bëgguma ñi ma dëkkal xam ne man dama positif. wante bu fekkente ne takkum masque bi ñëpp dañ koo def. képp koo xam ne sa dépisté nañ la nga positif mm-hmm. yow xam nga soo jékki-jékki rek bëgg a takk masque day attirer attention ñeneen ñi mm-hmm. mais bu fekkee ñëpp maasaloonañu di takk takkum masque mi mm-hmm. farataal ci tamit xale yi bu ñu leen fàtte farataal mag ñi yaakaar naa dina gën a jàppale nit ñi ci li nga xamante ne moom mooy xeex bi euh, beneen fànn bi mooy xam nga wax nañu ci wàllu lan moo waral feebar bi ñu jàpp ne yokk na parce que man dama gis ne taxawaay ba ca askan wi taxawee woon au début am na relâchement su ma nee am na relâchement mooy bu njëkk ba yaakaar naa nit ñi li leen gënoon tiital mooy euh, bees beesu feebar bi. Mhm. wante xam nga mbir su bëggee di jël temps di yàgg nit ki day dem ba day mel ni dëkkandooram gu mu wiin foofu nag may attirer attention nit ñi pour wax leen ne lii doonut loo xam ne feebar la boo xam ne dañ ko war a miin. Mhm. ba mu jaral ñu ñu ñu ñu bàyyi suñuy loxo fu ñu tegoon suñu tànk tey war nañ koo mën a yokk. Mm-hmm. ndax lii di feebar bi mën a reculer. Mm-hmm. ndax yaakaar naa bu ñu seetloo fan yi gis nañu ne nit ñaa ngi faatu. Mm-hmm. su ma nee faatu nag nit ñi dañoo war a bàyyi xel ne feebar bi feebar buy lore la naam am na yeneen feebar yoo xam ne sax ñoo fi nekk. tamit di yóbbu nit ñi mais nit ñi dañoo war a bàyyi xel. d'autant plus que wax nañu ne mag ñi dañoo sensible. xale yi dañoo sensible jigéenu wérul dañoo sensible kon foofu may gën a ñaan askan wi tey jii bu ñu wàccee seen loxo. Mm-hmm. nañu renforcer waat mesures yi. Mm-hmm. te yaakaar naa ñi nga xam ne dañoo ne gëmuñu ko ba léegi. Mm-hmm. bu ñu jàpp ne feebar bi ay politique la. bu ñu jàpp ne feebar bi dafa am ñu ciy wut alal. parce que dégg nañu yooyu yëpp. bu ñu jàpp ne feebar bi ay naxe la te bëgguñu ñu xaar. ba gis koo xam ne ku leen jege la ku leen taq wala koo xam ne seen njaboot la muy loru wala muy am feebar bi ñoom ñuy soog a mën a gëm. nit ki daa war a gëm balaa lii di ñëw su ko defee mu mën a xam nu muy préparer woo pour mun a aar askan wi en fait ñu xam ne tamit mesure barrière yi ñuy def. Mm-hmm. bu nu jàpp rek ne dañ koy def pour ñeneen. Mm-hmm. mais aussi dañ koy def pour nit ki ci boppam. d'accord sa propre personne d'abord balaa muy ne sax day sauver keneen. Mm-hmm. parce que su ñaari ñi takkee masque bu wàllante di am it dana néew. donc ñu farataal loolu yépp bàyyi ci xel. te gën ñu jàppale parce que bu yàggee ñun tamit ñun ñi nga xam ne ñun ñooy prestataire de santé yi. Mm-hmm. yaakaar naa bu yàggee dinañu sonn ba duñu mën a jàppale ñu bari. Mm-hmm. donc euh, yaakaar naa may mën a yooyu. Euh, am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yéen ngi seen rajo Afia FM ci seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak pharmacie nationale d' approvisionnement. ñuy waxtaanee euh, mbas mi di Covid 19 euh, Sira wax nga ko cas yi ñu ngi augmenté bu baax a baax ci district nord Grand Yoff fan yi yëpp ñu ngi ciy dégg ay cas communautaire te ku ne Grand Yoff nga xam ne dëkkuwaay bi xat na lool wax nga ko sànq. ñenn ñi dem sax banaan bomb la boo xamante ni bu explosé dina doy waar wax nga ko itam communication bi euh, taxu koo demee noonu communication bi des na bu baax a baax wax nga itam ne am na relâchement jëm ci wàllum population bi mu doon loo xamante ni euh, taataan nan euh, suñuy kàddu ñi nga xamante ni ñoo di population bi ñu wax ñu lu waral li nga xamante ni moo di relâchement bi dañuy àndandoo rek dem teewlu ji reportage bi. depuis président de la république Macky Sall bu mu génnee wax ne askan wi dañu war a dëkk ak yi seetlu bi mooy ñu bëri ci ñoom daña bàyyeeku jigo dëkk fii ci Grand Yoff di ko dëggal engagement bu ñu amoon si début bi ak léegi ni mu lu tax bu utee xëy na peut-être euh, dernier discours euh, président bi bu mu def ñii ñu xaw a seen ñu xaw a sàggane affaire bi léegi quoi comprendre loolu moo tax xam naa ñi moo ñu xaw a sàggane affaire bi parce que bu njëkk jëloon nañu ko franchement ci dëgg respecté mesures yi Modou moom it saxaw woon di jëfandikoo maskam ci waxtu bu ne tey ji fulla bu mu ci amoon dafa mel ni lu wàññeeku d'habitude su ma doon dugg ci oto damay masqué mais même bu ma mosaan dem di liggéeyi masque bi daf may gêner quoi le fait que ma koy porter lu yàgg daf may gêner léegi su may liggéey j'enlève xam nga le masque su ma liggéey ba pare nag su may dugg ci biir nit ñi ma porter waat masque bi Bangoura moom dafa tàyyi ci raxasu bari si yow da ngay raxas loxo midi yodu añ mais tu pas continuer raxas loxo tous les jours man France laa jógee l'État il a payé le courant il a payé le gaz il a payé la chambre alhamdulilah rabbil alamin Macky Sall il n'a qu'à faire la même chose aussi ci jamono ji population Sénégal dafa néewal mesures barrières yi ñu tegoon ginnaaw Macky Sall bu mu waxee nañu dëkk ak virus bi gunne ci askan wi daal di jël ay responsabilités waaw ñoo ko déggandoo mu mel ni bi ñu woyofalee mesures yi ba léegi si ñu ëpp ci sénégalais yi dañoo jàpp rek ne xeex bi euh, jeex na ba tax na kaa yaa ngi augmenté nga xawatina cas communautaire yi cas grave yi di gën di yokku lim bi si ñàkk seen bakkan yi itam di gën di yokku rassemblement yi di gën di bari donc loolu mooy population ne Sira mooy bi nga xamante ni euh, Macky Sall fal na li nga xamante ni mesures yi moom moo waral sénégalais yu bëri amal relâchement du ñuy faral di takk parce que boo génnoon léegi boo gisee ñeenti nit yu takk masque ñaar ña takkuñu mask waaw mais foofu li may wax Maimouna xam nga nit ki dafa war a xam ne takkum masque bi tey jii man su doon par exemple sama euh, maanaam koo xam ne kilifa la ci man. Mhm. dafa jël engagement ne moom du takk masque. man mi nga xam ne maay surga bi war naa mën a comprendre man lan moo tax man may takk masque. waruma ko suivre ci moom li muy def mm-hmm. parce que man dama war a am conviction ne man masque bi daf ma war a aar man mm-hmm. masque bi dafa war a aar aussi ñeneen ñi nga xamante ne man maa dëkk ak ñoom mm-hmm. te aussi ñu xam ne ki nga xamante ne mooy aar keneen kooku jàmbaar la d'accord kii aar keneen jàmbaar la kii jël engagement ne man dinaa fexe ba du man si man la feebar bi di jóge di wàll keneen kooku jàmbaar la donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax leneen li mooy am na lu ma bëggoon attirer attention askan wi. Mhm. te loolu euh, soxna may Maymuna damay bëgg imaam yi tamit ñu intervenir ci. d'accord parce que euh, gis nañu phénomène yoo xamante ne yi mosuñu ko woon gis. Mhm. maanaam su nit demee ba par rapport à la stigmatisation. Mm non seulement nga stigmatiser kuy dund boobu benn mhm. élément la mhm. mu dem ba yàlla jël ba kanam nga continuer ci stigmatisation boobu ba ne kii mhm. duñu ko suturaal duñu ko denc ci ci sëb yi ma xam ne nag loolu maanaam ça devient profond li tax muy devenir profond mooy tey jii ñi nga xamante ni ñii ñoom ñooy ñitu diine yi war nañoo jóg nag àddu delloo si xelu askan wi delloo si xelu askan wi mooy ne xamal leen ne tey jii li arrivé ñu jombul kenn non seulement jombul kenn mooy maanaam mënoon na arrivé ku ci nekk mënoon mhm. na arrivé waajuru ku nekk mënoon mhm. na arrivé doomu ku nekk est ce que bu boobaa dañuy taxaw ne sama doom kenn du ko denc wala ñu ne sama papa wala sama yaay wala sama soxna kenn du ko denc donc ku ci nekk dafa ci war a bàyyi xel mhm. mais aussi soxna Maymuna li ñu war a xam mooy tey jii bu dee dañoo dellu ci diine am na situation yoo xamante ne ñi nga xam ne yàlla def siy jël seen bakkan ñooñu ay shahid lañu moo tax ma ne imaam yi il faut ñu ñu àddu xamal askan wi euh, lan mooy yenn situation yi mm-hmm. delloo ci seen xel bàyyiloo leen xel ne ñoom nit kese lañu mm-hmm. te nit nag dafa am foo xamante ne fii moom mooy jeexital la te su amee jeexital dafa war a am nu ñu ko war a dencee suturaal ko mm-hmm. di fàttali aussi ne ba ñu fi waxee ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu waay dawlu yi nekk extérieur dafa amoon combat bu fi am ba ne dañu leen a war a indi pour ñu suturaal leen comme ni ñuy faral di defee ci suñuy aada ak suñuy gëm-gëm donc bu ñu xeexee loolu ba jot ko war nañu mun a nag delloo si xel yi bàyyi ñooñ tey jii su yàlla jëlee seen bakkan fii waxatuñu sax avion ak dëkk ñu bàyyi leen nag pour ñu mën leen suturaal. Mhm. Euh, li nga wax am na solo bu baax a baax yaakaar naa ni am na élément sonore boo xamante ni euh, mi ngi firndeel li nga xamante ni euh, wax nga ko mu di imam Pape njaay imam Pape njaay nag moom ma nga nekk foofu foofule ca grande mosquée bu Ndakaaru ñoom nag demoon nañ ab doxu nemmeeku boo xamante ni def nañ ko foofule ca Yoff Rufisque Guédiawaye ngir rek imaam yi ngir ñu mën koo yeggee euh, seen population euh, dañuy àndandoo rek daal di teewlu ji euh, imaam Pape Ndiaye bu grande mosquée bu Dakar. maa ngi tudd imaam Pape Ndiaye imaam ratib adjoint à la grande mosquée waaw xam nga Pape Ndiaye dañuy wax ni bu ñu nee nañu nañu jatu jatu mooy nii fekk na soccante moom moom la fanaanoo c'est-à-dire l'islam moom ci ak cet lañ ko fonde yàlla bi mu wàccee iqra jàngal dama ci teg mooy wasiyaabaka fa tahir yére yi ngay sol na set julli gi balaa baax day ànd rek njàpp te ku ni njàpp wax set ku amee janaaba da ngay sangu loolu lépp ak set la yonent bi ni boo tëddee ba asamaan set bala ngay jàpp di julli sax sa loxo yi na nga raxas ba mu set ndax xamuloo loxo yi fan la fanaan loolu lépp nag kon day wane ni lislaam ak set moo ko lal boo àndul ak set rek jaamu yàlla goo def du baax ba tax na kon lii ngeen di taxawee muy wàllu eh, jàngooro ji li ko fi jëlee kon li ci jiit kon mooy ak cet comme ni ko médecine jàngale mu mel ni kon lépp loo xamante ne bii walla médecine la muy jàngale doomu aadama yi du ñu mën a fagaroo ak nu ñu mën a fajoo loolu fekkoon na lislaam waxoon na ko avant lislaam sax yeneen diine yi fi jiitoon tam waxoon nañu loolu donc kon diine bu yàlla ma sa wàccee rek kon digle na ak cet wala ngay jaamu yàlla waaw déedéet ku feebar dañ ko war a assister yàlla dafa ni wa taawanu al birri wa tax taqwa wala taawanu al ismi wal udwan na ngeen jàpp jàppalante ci lépp lu baax rawatina aji feebar aji feebar dañ ko war a eh, jàppale ko bañ koo ñooru bañ koo daw ndax daw googu koy daw dafay yokk feebaram waaye boo ko di assister di ko encouragé dina tax sax mu mën a wér ba tax na kon képp ko am malaat na nekk ci booram lépp lu war ci moom ci wàllu faj ci wàllu dalal xelam da koy def loolu la ñu diine santaani ndax diine jikko ju rafet rek la ak dimbalante ak jàppalante boo ci génnee jikko ju rafet rek kon loolu diine nekkatu fa te daw am malaat bokk na ci jikko yi ñaaw islam santaani wu loolu rawatina ñoo xam te ne bi ñoo bokk ñoo bokk diine bokk bokk am réew te réew mi di Sénégal damay faral di wax ni dafa xat ñëpp ay bokk lañu ci wàllu deret ci wàllu diine ci wàllu dëkkandoo don kon doomu aadama bu faatoo conditions yi nga xamante ne moom la ci wàllu euh, santé fekkente ne taxawee nañ ko kenn warul ko réviser ñu doon bañ ko suul ci armée li ndax nit la comme ñun même bu doon ab yéefar sax yàlla sax si islam doxoon ni nañ ko suturaal suul ko ndax ndax bani aadama ndax nit la ndax nit ci boppam la yàlla teral yàlla mu ne wala xadd karam naa bani aadama man maa teral nit donc kon bu gëmee même bu gëmul sax kon nañ ko suturaal suul ko fa ñuy suul doomu aadama yi waaw askan bi yëpp nag ñoo ngi leen di ñaax ñu góorgóorlu olof Njaay nee na fagaru moo gën faju mooy tënd ko ba jàngoro yi bañ laa dal loolu moo gën yonent bi kat dafa xoon ni bokk na ci mi fagaru moom ndaanu qawmun isa akalna la nashba wa isa isa la nakul hatta najua wa isa la nashba mu ni man bala may lekk damay xiif te bu may lekk damay lekk ba ni këll loolu fagaru la parce que yenn reggaay yi di feebar lekk itam ci xiifoo di feebar kon nag fagaru moo gën faju kon képp koo xam ne bii doomu aadama nga la ngay moytandiku rawatina nga nekk mag dañuy wax dafa yàpp mag walla nga am di chronique kon ngay moytandiku bu ko defee ñi am ay ay ay mag am ay malade ñooñu itam jàpp leen dimbali leen ba ñuy bañ di génn ñu confiné wu ci kër yi ñu di leen jàppale ba nga xamante ne bii feebar du doon faagaagal ndax alaf jaay dee mag mat naa bay ci dëkk kon ku am sa sag mag sag màgget na ko euh, téye aidé ko jàppale ko ku am sa malade tam na ko jàppale ba mu bañ ba mu am dem dem euh, bañ am ay déplacement ba feebar di ko wàll nit doomu aadama itam yoo xam te ni du ñuy mag itam nañu téye seen tànk ku ci amul soxla bu far bul génn sax olof jaay ne tànk bu toogul kët dëgg dara maanaam ku toogul moom foog nga indi dara ci kër gi te jàngooro ji amul ay tànk yu muy doxee waaye doomu adama ji mooy dem fekk fu mu nekk indi ko ci kër yi kon nag kenn ku nekk da ngay dégg li médecins yi wax ndax yàlla dani fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun boo xamul laajal ci xam te fi mu nekk nag médecins yi mën naa wax ñooy imam yi ñooy ci mbir mi kon nañ leen déggal li ñu santaane ñu góorgóorlu ci li ñu tere ñu bàyyi ko yàlla na yàlla saafara jàngoor yëpp koo xam te ne ji gis nga ne am nga mandarga yi da ngay gaaw dem ndax xoddi ko bala ngaa lakkale euh, bu fekkente ni sentir nga loo xamante ne bii tàngaayu yaram la wala lu espèce pour gi metti wala yi demee noonu wala ngay saxat même bu ñu la waxul dara sax jéema la seet jokkoo ak fajkat yi bu ko defee ñu yóbbul faj la te teel a bu la teelee faj rek yàlla mën na jël sutura waaye boo xaar gi ba mu ëpp loxo mën naa am doo wér kon nag loolu lañ doon sànni di ñaan yàlla subhanahu wa taala bu dafa leen tawfiix dafa leen taysir ndax li ngeen nekkee jihaad la fi jihaat mooy lan ginnaaw boo gëmee yàlla gëm yonent bi lépp loo def ngir doomu aadama yi jàpp ne jihaat la waaw ngeen baal ñax waaw am na solo bu baax a baax mu mel ni euh, jàngoro ji fi mu toll nii euh, dañ ko war a xeex parce que ku ne cas communautaire na communauté bi donc ñun ñoo war a jug ñu acteurs communautaires yi rawatina ñii di bàjjenu gox yi relais communautaire yi mouvement jeunesse yi imam yeeg ñoom ñëpp a war a jàpp fi mu toll nii ci xeex bi ndax bu ne cas communautaire rek communauté bi moo ko war a xeex ba tax na war nañ cee dugal seen loxo bu baax a baax dañuy jox euh, kàddu gi suñu beneen invité di Fatou Bintou Cissé moom nag comme ni ko waxee spécialiste la en santé euh, communautaire dañ koy jox kàddu gi rek mu daal ñuy wax liggéeyam ci lan la jëmee liggéey bi spécialiste en santé communautaire seen liggéey lan la ci Covid waa waaw asalaamaaleykum ma nuyu waat euh, auditeurs yi bon ñun université bambay la ñu jàngee. Mhm. am fa suñuy diplôme en santé communautaire mhm. bon ñu nekk benn association mhm. euh, des diplômés en santé communautaire euh, ñuy liggéeyandoo ministère de la santé région médicale mhm. presque ñu ngi ci district yi Sénégal yi yëpp euh, bon leen jàppale si wàllum engagement communautaire bon Euh, santé communautaire nag lañ fay jàng si communication pour le changement de comportement mm-hmm. mm, si wàllum euh, programme de santé yi mm-hmm. presque si loolu lañu ñu gën a jàng mm-hmm. lu jëm ci wàllu covid 19 bi euh, ñu ngi lëkkaloog district sanitaire yi di liggéey si wàllum engagement communautaire engagement communautaire boo ko déggee mooy mm-hmm. euh, dañu xalaat que ni léegi feebar bi nekkatul feebar boo xam ne nii rek lu ñuy faj ci biir hôpital yi la mais feebar la boo xam ne nii dañ ko war a delloowaat askan bi mm-hmm. bu ko defee ñi nga xam ne nii ci quartier yi leader communautaire yi mm-hmm. ñoom ñu impliqué leen ci feebar bi euh, ñu gën a ñaax comme que ñoom ñu ngi ci seen koñ yi seen quartier yi te ñoom bu ñu waxee Euh, population bi seen waa quartier yi dinañ leen dégg. ñu ne mhm. ñooñu kat dinañ dem nemmeeku leen saytu leen waxtaan ak ñoom ci wàllum feebar bi bu ko defee ñuy gën a ñaax. seen waa koñ. Mhm. si loolu presque la ñuy liggéeyandoo kon bu ma la déggee da ngeen di wàcce si terrain bi ngir def ah. sensibilisation. ñan ngeen di sensibiliser bàjjenu gox yi. relais communautaire yi imaam yi ngir ñu mën a passer message bi. naka la seen liggéey di demee exactement waaw d' abord ñun euh, ñuy def sax sensibilisation dañuy def diagnostic communautaire ba pare wàcc sur le terrain lu ko lu mel ni par exemple bu ma doon joxe exemple. Mm. Euh, def nañ Grand Médine wàcc sur le terrain ñi nekk ci église yi mhm. euh, comment dirais-je prêtre mhm. waa jàngu bi euh, rencontré bàjjenu gox rencontré relais communautaire yi président ASC e yi ak euh, président CDS ICP ñooñu ñëpp rencontré nañ leen daal mm-hmm. laaj leen aussi ñu xoolaale aussi situation bi les facteurs à risque yi nga xam ne ni ñoo nekk ci population bi yooyu yëpp en même temps dañ koy noté waale mm-hmm. après léegi beneen yoon dina ñëwaat defal leen benn formation mooy lider communautaire yi comme ñi ma fi tudd nii imaam yi ñi nekk ci église yi mhm. mm, euh, bàjjanu gox yi mhm. relais communautaire yi defal leen ay formation parce que ñoom ñoo ñu gën a jege askan wi mhm. léegi nag ñu wax leen li nga xam ne nii maanaam euh, risque feebar bi wax leen mesure de barrière yi nga xam ne moom lañ war a mën a jël waaw presque noonu la demee woon euh, ñu jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy Cheikh Yankoba Diédhiou moom itam di spécialiste en santé publique dañ koy laaj ak liggéeyam naka lay demee ñeel jàngoro ji di Covid 19 voilà di rafetlu ci émission bi. Euh, féliciter Afia FM. Mm-hmm. gis naa ni vraiment vous êtes en train de faire un très bon travail. Mm-hmm. parce que li ngeen di def nii c'est pas du tout évident. Mm-hmm. mais gis naa ni vraiment li baax na trop ci seen contribution. Euh, donc santé publique dafa doon euh, domaine bu xaw a vaste tuuti. parce que moom moo englobe tout ce qui est du domaine de la santé quoi. mais orientation beaucoup. plus euh, d' abord day am ay domaines yu bëri am na épidémiologie épidémiologie mooy feebar yi. feebar yi kii comme cas bii nii. Mhm. cas euh, Covid-19 bi ou bien cas Ebola et cetera. Mhm. dañuy situation yu xaw a mel noonu mais également dinañ évaluer le coûts. appliqué mooy loolu ñu faral di wax domaine boobu moo tudd économie de la santé. Mm-hmm. ou bien dañuy def suivi et évaluation des programmes de santé. Mm-hmm. donc un peu aspect politique bi dañ koy analyser yu mel noonu quoi. Mm-hmm. ensuite am na domaine boo xam ne aussi euh, bu am solo buy intervenir dans la santé publique mooy euh, nutrition bi nutrition alimentation ak diététique de population donc communautaire ak aussi euh, santé communautaire pure et donc yooyu yëpp santé communautaire ci santé publique la bokk. voilà donc euh, ñun euh, boo gisee ñu ñëw fii comme euh, soxna Fat Bintou mu ko waxee donc ñu ngi ci cadre association association nationale de diplômés en santé communautaire du Sénégal donc association boobu au passage maa ngi nuyu suñu président bi suñu secrétaire ak membre bureau yi xam naa ñu ngi ñuy déglu donc association bi dafa aussi bëgg indi contribution lu ñu def nii ñu ngi koy def gratuitement ñu ngi presque dans tous les districts du Sénégal mm-hmm. bon ñu mën ak Fatou Bintou la ñu indi fii ci district nord bi. Mhm. donc euh, mais comme Fatou Bintou mu ko waxee bon on a fait d' abord le si communautaire dañuy dañuy def diagnostic communautaire pour xool comme ni nga ko laajte woon fii soxna Sira. Mhm. Euh, lan mooy problème yi donc après diagnostic communautaire bi lañ leen defal orientation maanaam formation bu ndaw. dañoo mhm. euh, cibler donc les acteurs communautaires. comme ni mu la ko waxee mooy les porteurs de voix. Mm-hmm. ñi nga xamante ne vraiment am nañu daraja seen koñ. et puis koñ bi dinañ leen déglu. Mm-hmm. bon on a fait pour le moment def na trois formations. Mm on a commencé par l'unité 16. Mm -hmm. ensuite unité 26. ak Grand Médine xam nga Grand Médine soo seetloo. c'est un quartier boo xam ne organisation villageoise la. d'accord xam nga donc là bu ñu fay am cas yu bëri rek day nekk genre bombe. Mhm. loola tax aussi boobu lañ ko ciblé. Mhm. te on a fait quand même euh, un travail très remarquable. Mhm. mais euh, lu gën a am solo loo xam ne loolu lañ defoon suñu liggéey. mooy euh, l'engagement communautaire. d'accord c'est quoi l'engagement communautaire engagement communautaire mooy maanaam solution bi du ñoo leen koy dicter. mais ñun ak population yi ñu dañ leen di orienter rek. ñu nag population yi ñooy yisandoor solution yi mm-hmm. parce que ñoo la gën a xam sa koñ ñoo la gën a xam les facteurs de risque de la maladie donc ñoom ñoo koy identifier seen bopp après ñi ñu orienté leen ah avec les ressources disponible ñu xool nan lañ mënee trouver solution donc loolu lañ gën a insister ah, en milieu communautaire dans la dans le cadre de la formation dañoo njëkk a feebar bi yëpp mm-hmm. mais ba pare vers la fin dañ leen defal ba une genre table de bord voilà merci beaucoup d'accord am na solo bu baax a baax damay dellu siwaat euh, ci Fatou Bintou Cissé euh, Fatou ñu gis ne euh, cas communautaire yi ñu ngi bari bu baax a baax wax nga ko dem ngeen Grand Médine Parcelles Assainies mais est-ce que am ngeen intention ñëw fii ci diwaanu Grand Yoff parce que wax naa ko sànq ku ne Grand Yoff comme Grand Médine rek promiscuité nit ñi seen dëkkuwaay yi dafa xat est-ce que am ngeen intention ñëw fii Grand Yoff si si si la semaine passée on a commencé avec poste de santé Grand Yoff def nañ foofu d'abord diagnostic communautaire ba pare demee sax lañ leen war a defal benn orientation mooy comité de ciblage yi euh, ñoom moom lañ ciblé foofu pour defal leen benn orientation waa gis na ne cas communautaire yi aussi euh, bon mi ngi bari trop promiscuité bi aussi bari na mais euh, li ñuy wax rek xanaa ñu agir ci comportement yi jéem a changer comportement yi xam ne aussi it mesure de barrière yi nu ministère de la santé édicté ñu jëm ko respecter xam ne aussi loolu sunu njariñ la daal ñu mhm. xam ne sunu comme ni ngeen ko déggee sànq ci bi. Mhm. relâchement am na. Mhm. relâchement bi li ko indi ñu bari danoo jàpp ne depuis que Macky Sall woyofalee li nga xamante ni moo di mesures yi te sénégalais yi jàpp ne xeex bi jeex na. Macky Sall ba tey sax woyofalul mesures yi dane on va apprendre à vivre avec le virus parce que xam na ne virus bi benn fan rek jëleewu ko fi mais. Euh, pour que ñu mën a continuer suñuy activité pour que économie mën a bañ a sooxe ah, donc on va apprendre à vivre avec le virus tout en respectant les mesures de barrière waaw mhm. ah, man foofu laa ko jàngate xëy na peut-être population bi ñenn ñi ñoo ko jàngatee nam leen arrangé <laughs> waaw <laughs> ñoo ko jàngatee peut-être nam leen arrangé mais man ah man de noonu laa ko jàngatee d'accord d'accord Cheikh euh, euh, wax nga ko sànq solution bi jógewul ci ministère de la santé et de l'action sociale euh, solution bi ci communauté bi la war a jóge maanaam ci askan wi mu mel ni ni ma ko waxee rek port de masque yi nit ñi euh, bu ñu bëggee wax sax dañ koy dindi en plein public yenn saa yi ñu def ko fii seen sikkim yenn saa yi euh, nga gis ñoo xamante ni takkuñu sax masque pas du tout mu mel ni euh, wax nga ko sànq communauté bi ñoo ko war a xeex waaye yéen wax ngeen ko sànq ne ngeen formé ngeen ñi nga xamante ni ñoo di imam yi acteurs communautaires yi. bàjjenu gox yi. Mm-hmm. relais communautaire yi. mais est-ce que ñoom am na outil yi nga xamante ni. moom la ñuy duggee ci biir askan wi parce que ku ne euh, Covid 19 xam ne am na ay risques pour nga mën a def porte à porte dugg ci biir kër gi sensibiliser leen. Mhm. est-ce que euh, am na matukaay yoo xamante ni teg nañ ko seen loxo ñoom relais communautaire yi bàjjenu gox yi ngir seen sensibilisation bu gën a mucc ayib. Euh, merci effectivement ñun bu ñu demee ci terrain bi. Mhm. bokkoon ci préoccupation ñoom bàjjenu gox yi. Mhm. ak acteurs communautaires yi. mais nous en bon. diagnostic dañ ko transmettre euh, médecin chef bi mooy autorité yi. bon mais après bu ñu demee ci terrain bi. Mhm. Euh, dans certaines zones. Mhm. mën naa wax ni presque am nañu essentiel bi. donc parce que population yi ñoom seen bopp par exemple Grand Médine bu ñu demee. Mhm. amoon na fa ay euh, ay de politique ay politiciens. yoo xam ne ils ont participé. maanaam dañoo génnee seen xaalis ah jëndal population yi le dispositif de lavage des mains. maanaam maanaam savon bi ah, ak kii bi yëpp waa masque bi et tout ça ensuite euh, gisoon nañu aussi que ñoom euh, ñu bëri ñu bu ñu yegee sax ñoom ñoo ñu teeru avec avec un matériel d'accord dañoo tegal foofu benn gel ah jox ñu savon ñu laver wu suñu loxo et cetera donc mën naa wax ni en tout cas le minimum am na bon mais en réalité euh, outil bu ñu gën a soxla mooy d' abord ñun en tant que spécialiste en santé communautaire et en santé publique mhm. mooy ñu ñu orienté leen maanaam ñu expliqué leen d' abord lan mooy feebar bi deuxièmement bu feebar bi leeree seen bopp ñu wax leen quels sont les modes de transmission de la maladie on les a expliqué mhm. ci gàttal wax nañ leen nii feebar bi donc euh, mains yi ce ce sont des manuporteurs de germes ñu ñoo ñoo yóbbaale germes mhm. te boo seetee euh, en général nit ñi mauvais comportement à risque yu gën a bëri. Mhm. mooy jël seen baaraam di dugal ci seen bakkan. jël seen baaraam di dugal ko ci seen bët et mhm, mhm. looloo tax masque bi am solo soo takkee masque bi di nga éviter yu mel noonu. mais le problème mooy masque bi takkuñu ko comme ni nu ko wax war a takkee. waaw très bien am na ñoo xam ne dañ ko def ci tërukaay. waaw dañ koy teg ci kii bi nii surtout euh, xale jigéen ñi dañ koy teg ci tiit bi mel nii finalement ça devient une mot quoi. mais masque du loolu mooy njëriñam njëriñam mooy boo takkee masque bi. Mm-hmm. dalay aar yow mii contre feebar bi. Mm-hmm. contre keneen koo xam ne dafa am feebar bu la bëgg a wàll. mais mm-hmm. aussi yow doo wàll nit ki. d'accord gis nga doo wàll nit ki donc moo tax nit ñi dañu war a fexe ba. di takk seen masque correctement. Mhm. ah di aar seen bopp contre kii bi soo seetloo. Mhm. hôpital yi léegi presque amatuñu nit. d'accord du question dañoo ragal feebar bi de. Mhm. en fait lu ñuy takkee masque bi ak nu ñuy laabee seen loxo. tax na ba feebar yu bëri wàññeeku. d'accord da gis léegi nit ñi duñu sojati comme lu bëri. nit ñi dañuy toog lu yàgg parce que yeneen feebar yu bëri loxo yi moo koy joxe. d'accord loolu laa amoon pour yokk ci tuuti. am na solo mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yen a ngi seen rajo Afia FM ci seen émission meilleure santé ñu ci ànd ak pharmacie nationale d' approvisionnement ñuy waxtaanee ni ki tey ji engagement communautaire ak jàngoro ji di Covid 19. dañuy demaat rek ci Fatou Bintou Cissé faatu bintu mu mel ni itam yéen yéen a ngi am liggéey bu am solo boo xamante ni yéen a ngi koy def ci biir askan wi est ce que. jox nañ leen outils yi maanaam li nga xamante ni pour yéen protéger leen. waaw bu ñuy dem ci terrain bi jox nañu suñuy matuwaay euh, ñu ngi ak suñuy alcogel bon dinañ takk suñuy masque euh, waa presque loolu la te aussi en même temps aussi constaté nañ aussi que à chaque fois kii euh, leader communautaire yi ñuy dugg. Hmm. mooy délégué de quartier yi imam yi. franchement foo si dem nag euh, am na kii euh, dispositif lavage de mais foo si dem rek am na dispositif lavage de mais parce que nit ñi fay ñëw dafay bari moo tax. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mu mel ni mu mel ni comme ni nga ko waxee jël ngeen seen matukaay. waaw bàjjenu gox yi ñu ngi leen koy wax sànq. Mm-hmm. ñoom euh, foofu nañ war a mën a gën a accès xeex bi bàjjenu gox yi. parce que bàjjenu gox yi dañ leen di gis ñuy yëngu. ci feebar yu bari paludisme tuberculose mm-hmm. ñoom ñooy dugg ci askan wi di mm-hmm. leen di leen sensibiliser comme ñoom nekk na nit ñoo xamante ni dañ leen di déglu bu baax a baax mais si seen côté ñi nga xamante ni ñoo nangoo jël engagement def liggéey bi dafa néew lool mm-hmm. li ko waral mooy teguñu seen loxo jumtukaay yi nga xamante ni ñoom mën nañ ko jëfandikoo ngir protéger seen bopp parce que ñoom itam dañoo yor njaboot bu liggéeyee ba pare seen njaboot nañuy delluwaat waaw loolu am na euh, ñoom xam nañ ne ñoom ñoom sax euh, amuñu salaire ñoom loolu dañ koy wax. Mm-hmm. mais quand ñoom ñun li nga xam ne nii si leen leen di gën a ñaax mooy. Euh, maanaam xeex bi dafa nekk xeex boo xam ne nii ah xeex comment dire collective la. Mm-hmm. ku ci nekk rek fa nga mënee. Mm-hmm. war nga cee joxe sa contribution nga bañ ci xeeb dara ba tax na am na ci yenn quartier yoo xam ne nii par ñoom dañoo def ay quête. ñoom bàjjenu gox yi ñoo jël seen initiative de après bi ñu leen defalee formation ñu jël seen initiative ne par maison mille francs la ñuy def jënd ci seeni i masque jënd seen dispositif lavage des mains jënd seen i alcogel distribuer ko ci maison yi mhm. ak euh, coin des rues ñu teg fa seen i dispositif lavage des mains d' ailleurs unité 16 defaloon nañ leen benn orientation ñoom it si engagement communautaire ñoom mhm. commencé nañ ko mhm. seen coin de rue yi def nañ fa seen i dispositif lavage des mains parce que xam nañ na wér-gu-yaram bi sa wér-gu-yaramu bopp la mm-hmm. d'abord avant tout aussi it waroo xaar état bi parce que boo amee lu lay métti bu fekkee sa bopp mooy métti du Macky mm-hmm. Sall moom moo ko yëg mm-hmm. yow d'abord balaa sa dëkkandoo bi di ko yëg yow yaa koy njëkk a yëg liy métti ci yow kon d'abord bu ne laa fajul ah ki naan la fajul sa jàmm la la bëggal kooku bëgg na la képp ku naan la sa wér-gi-yaram rek kooku bëgg na la sa jàmm la la bëggal ñun aussi dañ leen di ñaax si côté boobu ba ñu xam ne feebar bi ci boppam feebar bi euh, bu la dalee euh, li la ciy métti daal li ëpp ci yow la ci ci yow la daal te aussi it comment dirais-je mesure de barrière yi boo ko jëlee dinga nga protéger sa bopp te aussi di nga protéger ki nga dendal mm. te aussi euh, lii di ndox ak saabu comme ni ko madame Ndaw waxee rek mm. franchement moo gën a yomb si dépp masque yi aussi it jafewul aussi benn instant mm. ku nekk mën nga ko procurer wu daal mm-hmm. ba nga xam ne nii ah, di nga ci mën a fagaruwu waaw ñu gis ne itam Bintu mm-hmm. am na wéjur yu bari yoo xamante ni yóbbootuñu seen doom ñu ñaq te ñaq yi ku ne xam ne ne dafa am solo lool ci xale yi mm-hmm. ndax moo leen di aar ci yenn feebar yi mu mel ni itam am na ñoo xamante ni ñu ngi sooxaale ay feebar seen bind kër mais ñemewuñu dem hôpital psychose bi lan ngay wax ci loolu boo amoon loolu leen di wax tey lan nga leen di wax surtout xale yi nga euh, jigéen yi nga xamante ni demuñu ñaqi seen doom ndax Covid 19. waaw jigéen ñi moom li ma leen di wax mooy nanu yóbbu xale yi parce que aussi Covid 19 bi euh, mesure de barrière yi daal boo ko jëlee pour man nga nekk jigéen. nga jël say parce que hôpital yi yi fépp am nay dispositif lavage des mains boo takkee sa masque sa doom aussi it euh, nga protéger ko. Ah, ah, yóbbu ko mu dem def vaccination parce que aussi loolu moo koy aar mhm. ku ci feebar aussi yëglu lay métti demal hôpital mhm. nga dem faju ji parce que aussi la santé avant tout hôpital ñu ngi continuer di liggéey seen liggéey de mhm. ñu ngi ñi feebar ñu ngi leen di traité di leen faj bokkut ak ñi ñuy traité ñi yor Covid 19. Mhm. bañ na wa bokkuñu sax fu ñu nekk. Mhm. kon daal ku ci yëg lu lay métti na dem dox ba hôpital nga dem faju ji. Mhm. parce que ñoom aussi ñu ngi continuer di liggéey seen liggéey. Euh, Cheikh mu mel ni euh, wax nañ ko sànq Sira wax na ko sànq communication bi jàllul benn yoon am na fu mu lajjee communication bi parce que depuis le début de mars bi feebar bi dugg see fii ci réew mi ba léegi ñu ngi wax mesure barrière yi geste barrière yi respecté leen lii dee leen masque boo leen bëggee euh, tichool yi ngeen def nii seen kër wala ngeen utiliser mouchoir boo leen ci noppee sànni ko mais dañuy gis ne cas yi day gën di yokk communication bi fan la fan la fan la lajee ak lan lañ war a mën a def ngir solution mën a am daal cas yi mën a wàññeeku. waaw d'accord merci madame euh, effectivement euh, mën naa wax ni il y a quand mm. ñi wax ko bañ ko wax difficulté am na. Euh, mais li nga war li ñu war a seetlu mooy généralement bu amee euh, un problème comme ça. Mhm. Euh, c'est souvent un problème euh, comportemental. d'accord donc comme problème comportemental la donc ce sont des causes comportementales causes comportementales comme ni ma koy faral di waxee rek. Mhm. ce sont des causes yoo xam ne il faut insister sur la communication il faut une communication pour un changement de comportement. maanaam il faut ñu waxtaan. waxtaan boo xam ne dina tax ba nit ñi soppi. donc seen seen seen jëfin. boo seetloo Sénégal euh, y' a beaucoup de problèmes de discipline yu am. d' accord y' a yoo xam da nga gis ñoo xam ne euh, dañuy ignorer lu bëri xamuñu ni mën nañu sax am feebar bi. te mhm. xamuñu ni am nañu feebar bi. parce que yaa a ce qu'on appelle des porteurs euh, sains. Mhm. donc des gens yoo xam ne ils sont ils n'ont pas de signe du ñu am signe. Mhm. fekk am nañu feebar bi. te ñooñu mën nañu wàll feebar bi. donc looloo tax. euh, le droit de ne pas donc euh, le masque ah c'est pas un droit mun nga ko def comme droit mais après bu fekkee da ngay nekk ak nit ñi bu yàggee yow da ngay wàll nit ñi. xam nga fu may waxee. Mm-hmm. Mm-hmm. maanaam yow da foog ni man waruma ko sol bi wax ma neex. mais yaa ngi wàll keneen. Mm-hmm. donc euh, aussi looloo tax je crois que la police doit jouer son rôle. la police doit jouer son rôle en quoi faisant ku takkul masque ñi jàppale la. ñu la. Mhm. man tey bu ma demee police parcelle. Mhm. gis naa keneen koo xam ne dafa ñëwoon di fay si loolu damaa mhm. kontaanoon trop. ma xam ne au moins la police est en train de jouer son rôle. voilà mais mu mel ni loolu noonu lu am solo la. mais ndogal bi d' abord il faut mu jóge ci gouvernement bi. bien sûr bien sûr je pense que port de masque bi c' est obligatoire. wax nañ ko. def naa le ministre de l' intérieur a fait un arrêté ah sur lequel il a précisé que le port de masque est obligatoire ce que nit ñi ñëw bopp rek. sénégalais waaw sénégalais mooy mooy loolu waaw gis nga donc looloo tax euh, il faut ñu insister rek toujours dans la communication ñu sensibiliser nit ñi. Mhm. sur le fait que feebar baa ngi fii. Mhm. tey la gën a tey la waalo. gën a ñaaw waaw donc. joolaa bi dafa bëgg a wax olof voilà gis nga <laughs> tey la feebar bi gën a graaw. Mhm. soo seetlee le nombre de cas mu ngi yokk chaque chaque jour. parce que parce que tey par exemple euh, au niveau national ñu ngi am 3932. Mm-hmm. cas positif. Mm-hmm. ah yi ñu ngi ci quarante cinq décès mais loolu bëri na ensuite euh, bon quand même Sénégal mu ngi góorlu boo seetloo ñu ngi am 2063 jéeri gis nga ñu nekk sous traitement ñu ngi nekk 1823 ñu nekk sous traitement d'après le communiqué du ministère de la santé bu mu defoon tey. Mm-hmm. donc mën nañu wax euh, lu lu pour wane ni feebar baa ngi fii. Euh, en tout cas suñu district nord bi am nañu cas au Parcelles Assainies mhm. cas communautaire mhm. am nañu benn cas communautaire parmi les cas communautaires yu ñu identifié au niveau national mooy 16 mhm. yooyu Parcelles Assainies am na te chaque fois aussi euh, boo seet loo ñu ngi am toujours ay cas ay cas d'accord communautaire au niveau de notre district nord loolu tax il faut que ñuy sensibiliser nit ñi pour ñu génn donc euh, jël seen matuwaay. Mhm. gën a appliquer les mesures édictées par le ministère de la santé. Mhm. mooy les mesures barrières. Mhm. ah éviter éviter di dox sans masque. même à la maison comme l'a dit donc euh, notre doyenne euh, madame bi. comme nu mu ko waxee san madame Daw ah donc war a respecter les mesures te bu ñu ko defee def naa dina wàññeeku loolu. d'accord mu mel ni Bintu wax na ko nan respecter yi nga xamante ni moo di mesure barrière yi bi ñu tàmbalee ba léegi ñu ngi koy wax mais. mu mel ni euh, gouvernement bi fi mu war a commencé commencé wu fa maanaam ñoom ci ay spot nañ doon def ci télé yi di ko wax ci rajo yi di ko def ci télé yi c'est bien beau mais li nu waroon a njëkk a def est-ce que nekkul woon wàcc à la base euh, balaa euh, cas communautaire yi ñëw est-ce que laajul woon ñu njëkk wàcc ci base bi impliqué ñi nga xamante ni ñoo di acteurs communautaire yi bàjjenu gox yi relais communautaire yi imam yeeg yooyu ñu sensibiliser askan wi est-ce que loolu buñ ko defoon feebar bi dina dina yegg si fii mu yegg si tey. waaw bu buñ ko defoon moom parce que commencé wu à la hmm, base waaw commencé wuñu woowu loolu foofu parce que peut-être que ni du ma du ma ne. gouvernement bi sax laay sanctionné mais damay wax ne ñun suñu idéologie li ñu jàppoon yaakaaroon na nan ne wax dëgg yàlla feebar bi du agsi fii parce que dañ ne woon feebar bi feebaru nit ku weex la du sonal euh, borom ku nit ku ñuul du ñu mm-hmm. rey ah ñi jàppee ko ne soj dong la mm-hmm. yaakaaroon na ne du agsi fii bon te au début aussi te euh, commencé bi ñu commencé di faj aussi amoon na ñu doon wér aussi mm-hmm. à chaque fois ñu ne nombre de cas guéris ñuy dundee yaakaar certain moment ñu gis euh, au fur et feebar bi di gën a yokku mm-hmm. léegi nag si lañ commencé génn benn programme muy engagement communautaire te boo xoolee moment bi sax léegi presque si loolu la hôpital yëpp presque district yi presque ñu bari si lool la ñuy liggéeyee mm-hmm. ba da ngay gis ne euh, d'ailleurs euh, semaine passée euh, da ngay gis euh, préfet yi préfet de mhm. Dakar mhm. Mhm. ak gouverneur yi waa je crois que ce sont les préfets préfet moom boobu assisté naa ko ñu ngi wàcc sur le terrain di sensibiliser leader communautaire yi sur l'engagement communautaire waaw parce que gis nañ que ni feebar bi euh, pour pour mu jóge fii il faut que population bi impliqué wu impliqué wu ci Mm-hmm. il faut que population bi impliqué wu ci ñu jël suñuy matuwaay ku ci mm-hmm. nekk jël say matuwaay loolu moo ko fiy jëlee mais du ñu que ne do médecin yi ca euh, ña sol blouse ya mm-hmm. ñoom ñoo ko fi mën a jëlee ñun ñoo ko fi a jëlee ñun population bi loolu moom comprendre nañ ko am na solo bu baax a baax yaa ngi koy wax sànq wàllum indiscipline mu mel ni euh, ba euh, mesures yi tegoo ba ministère de la santé Euh, taxawalee li nga xamante ni moo di mesure barrière yi mu mel ni respect bi ba tey sénégalais yi mënuñoo fexe ba respecter lii nga xamante ni moo di gest barrière yi. waaw loolu c'est vrai euh, pro problème comportemental moom am na Sénégal loolu moom ñëpp xam nañ ko dama la jox benn exemple rek pour nga xam ni euh, discipline bi am na solo. Mhm. soo jëlee Chine le chinois dafa discipliné. chinois comme japonais yi ñoom ils sont tellement disciplinés mhm. que ñooñu en général. Euh, gis nga feebar bi sax yàggu fa. d'accord ou bien même bu fa nekkee ba léegi sax bëriitu fa. Mm-hmm. parce que dañu ñëpp a respecté donc euh, directive bu gouvernement bi. mais ñun fii moom boo waxee rek euh, généralement lan moo tax ba fii par exemple gars du ñu respecté croyance yi la dañu am ay croyances culturelles. dañu am également ay croyances religieuses. Mm-hmm. donc croyances culturelles yi am na ñu lay wax bon bon lii moom du jàpp du jàpp joolaa. wala ñu ne la mhm. lii du jàpp euh, waalo waalo. Mhm. wala lii et dafa am croyance donc populaire croyance culturelle yoo xam ne dafa ancré dans notre sociologie. Mhm. donc loolu c' est un élément. deuxième élément mooy croyance religieuse. gars da nga leen di wax rek ñu ne non lii ñu ne lii. Euh, nattu yàlla la. wala ñu lay wax leneen. am na ñu lay wax te du jàpp jullit. parce que jullit day day jàpp et cetera. gis nga donc euh, boo seetloo donc croyance yooyu nekkoon na un des facteurs yu tax ba Covid 19 bi gën a développé mm-hmm, mm-hmm. moo tax dans la communication il faut que aussi ñu dugal fa les acteurs responsables de ces croyances maanaam les les kii les les les les imams. Mm-hmm, ah, les chefs de de kii les chefs d'école. Euh, ah, daara les chefs daara daara yi. Ah, l'église l'église looloo tax ñun bu ñu demee si terrain bi dans le cadre de l'orientation de la formation dañ ci impliquer ñooñu yëpp. parce que comme ni ngeen ko waxee la nouvelle philosophie la nouvelle communication mhm. c'est l'engagement commun communautaire mhm. il faut que communauté bi ñu engagé ko ci xeex bi bu ñu leen engagé ci xeex bi defe naa dinañ ci am lu bëri bëri bëri bëri mhm. bon <coughs> donc euh, en grosso modo jëf naa def naa loolu la quoi Mhm. Euh, ñu la euh, am na solo bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne yi a ngi seen rajo Afia FM ci seen émission meilleure santé comme ni mu ko waxee rek sénégalais yi war nañ mën a dakkal wala bañ ñu leen ne euh, dangeen a indis indiscipliné il faut ñu régler euh, loolu question boobu sénégalais yi gën a xam ne feebar bi mi ngi fii ci réewum Sénégal ñu respecté li nga xamante ni moo di gest euh, barrière yi di faral di loxo raxas suñu loxo ak ndox ak saabu saa su nekk di sol suñuy masque ndax loolu mooy tax feebar bi du gën a law du gën a law laay wax ndax law na ba pare mhm. mun toll ci ay 3000 cas ay 46 wala 45 décès loolu doy na waar mi ngi gën di law mhm. te bu gënee yokku euh, suñu plateau médical nan waxante dëgg rek attanu ko dina dem ba nga xamante ni malade yi duñ am fan leen leen di dugal te loolu nag musiba la euh, ci réew bu mel ni réew mu Sénégal nga xamante ni euh, c'est un pays sous-développé. Mm-hmm. Euh, mbokk auditeurs yi lii leen leen indiloon waaye laataa ñoo tàggatoo rek dañuy jox suñu invité yi ñoom ñu tàggatoo ba noppi Fatou Bintou. waaw maa leen di gërëm di leen sant bon di gërëm waa district sanitaire nord. li ko dalee ci li ko tàmbalee ci médecin chef bi médecin chef docteur si Euh, madame Ndaw aussi maa ngi koy remercier bu baax a baax di remercier major ba di remercier personnel yi fa nekk yëpp di leen remercier yéen waa Afia FM aussi euh, si accueil bi aussi euh, si opportunité bi ngeen ñu jox ñu mën a waxtaan ak askan wi merci. Mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax dañuy jox kàddu gi Cheikh ba Diédhiou des spécialistes en santé publique mu daal di tàggatoo. wala maa ngi également remercier donc Afia FM. pour nous avoir donné l'opportunité ñu mën a communiquer avec les populations pour que aussi euh, vous permettre association bi mooy association donc des diplômés en santé communautaire mën a aussi communiquer ak donc populations yi mën a joxe aussi sa participation ensuite maa ngi également euh, donc euh, remercier le médecin chef donc du district docteur Sy ensuite remercier Madame Daw Madame ndaw bu ñu fi indi ensuite ah. remercier le superviseurs des soins de santé primaire mm-hmm. remercier major bu donc euh, hôpital euh, Nabi Choucair hmm? donc ñoo ñëpp ñu ngi leen di remercier tout le personnel en tout cas ñoom ñoo ñu fi yabal mm-hmm. ñu en tant que spécialiste pour ñu jàppale leen ci donc euh, xeex bi voilà maa ngi également profité occasion di mm-hmm. remercier suñu président président donc de l'association des diplômés en santé communautaire ak secretaire général bi et l'ensemble des membres du bureau parce que ñoom nit ñu ngi taxaw di déglu émission bi donc euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, remercier ci à l'occasion ak aussi ñu ngi remercier seen seen euh, seen auditeurs yi. d'accord waaw ak aussi di leen demander vraiment nañu fexe ba di déglu genre émission yi. parce que suñ ko déglu dégluwee dinañ mhm. xam lu leer. Mhm. pour ñu bàyyi di laam-laamee ndax feebar bi am na wala amul. Mhm. ndax feebar bi politique la wala et cetera. feebar bi du loolu feebar bi am na. waaw. am na te ñu bëri gis nañ ko. d'accord parce que am nañ seen mbokk yoo xam ne feebar nañ ci. Mhm. voilà merci. Euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk auditeurs yi di leen fàttali ne lii nañ leen indiloon euh, ci seen émission meilleure santé ñu ci doon ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñu doon waxtaanee euh, engagement communautaire ak jàngoro jii di Covid 19. ñu doon dalal Fatou Bintou Cissé di spécialiste euh, en santé communautaire ak kii di Cheikh ba Diédhiou di spécialiste en santé publique dalal nañu itam ki nga xamante ni moo di Sira Doumbia di EPS bu l'hôpital Nabil Choucair ñoom ñi leen nag di def liggéey bu am solo di wàcc ci terrain bi di sensibiliser ñi nga xamante ni ñoo di acteurs communautaires yi ngir ñoom itam à leur tour ñu dem euh, sensibiliser dëkkuwaay bi seen i gox sensibiliser askan wi euh, ci geste barrière yi nga xamante ni moom la fi ministère de la santé euh, teg ngir rek ñu mën ko respecter xeex li jàngoro ji di Covid 19 mu génn ci réew mi nu mu gën a gaawee ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon incha allah.